noo ngi fas yéene dellu siwaat àndaat ak yéen ci sunu bindub tafsir démb jeexaloon nañ suuratul maarij tey insha allah ñu war a jël suuratul xaaqa comme ni mu leen ko waxee woon rek ñun ci suuf lañu tàmbalee jëm ci kaw dafay saar yi gën a féete suuf ngir xale yi gën ko mën a comprendre bismillah arrahman arrahim yàlla suñ borom tabaraka wa taala nee na alxaqa moy mooy dëgg ga alxaqatu ci turu yowm alqiyaam yi ci la bokk yowm alqiyaam yàlla tudde na ko ay tur yu baree bare bokk na ci alqaariatu bokk na ci alwaaqiatu bokk na ci alxaqatu bi bokk na ci yowmul qiyaama gi ngeen di dégg mi gën a siiw waaye tur yu baree baree baree bare la am tur wu ci nekk nag dafa am lu muy tekki ëllëg yowmal qiyaama saar wii nag borom bi mi ko tàmbalee ci tur yooyu muy alxaqatu saar wii nuy jàng ak wi doon firi démb daanaka benn la saar wi doon firi buy suratul maarij mu ngi tàmbalee ci sa'ala sa'ilun bi adabi laaj kat yi dañ doon laaj naan mbugal mi yonent bi di digge bis bu jot kañ lay ñëw yàlla nag di leeral ni yowmal qiyaam googu dëgg la te dafay am day ñëw di ci leeral saar wi it loolu lay leeralaat ni yowmal qiyaam dëgg la te dina ñëw waaye ñetti parti la ko yàlla suñu borom bi séddalee saar wi bi ci njëkk mooy saar wi ci boppam day wax yowmal qiyaam dëgg la goo xam ne guy am la te day ñëw joxe firnde yi ba mu leer nañ beneen parti ba mooy yàlla dana ci wax ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ragal yàlla seen mujj waay ak la ne am ëllëg yowmal qiyaam waaye dana wax ñi nga xam ni dañoo weddi yàlla ëllëg yowmal qiyaam seen taxawaay la dana ko ci wax ci saar wi yàlla nag ni alxaqatu dëgg ga malxaqatu ma lan mooy dëgg ga wa ma adraaka ana lan moo xamal xamal malxaqatu ana lan mooy dëgg gi yowmal qiyaam bu ko yàlla tuddee fi dëgg ga mooy wane ni yowmal qiyaam lépp la mooy bésub dëgg bi waaye lépp la fay amit dëgg lay doon bis la boo xam ne lépp la fay xew dëgg lay doon kenn ku ci nekk li nga jëfoon fii ci adduna ak lu mu tuuti tuuti lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw bu yomal xiyaamee loolu nga fay fekk duñ ci yokk dara duñ ci wàññi dara lu mu baax baax baax baax baax lu mu bari bari bari loola nga fay fekk duñ ci yokk duñ ci wàññi kenn ku ci nekkit sa àq su ëllëgee yowmal qiyaam suñu borom dana la ko jox ba mu mat sëkk kenn ku ku ameeloon sa morom fii ci adduna ñu àtte ko fi nax la ni la kii la tooñ fekk tooñu la maanaam jalgati nañ say àq su yowmal qiyaamee mooy bisub alxaqatu mooy bisub dëgg ba lépp danañu la ko jox ba mat sëkk muy say àq wa kulla shay'in axsaynaahu fi imaamin mubin lépp yàlla takk na ko ci téere bu leer bu biir boo xam ne si yowmal qiyaama mu génne ko lépp leer duñ sosal kenn yàlla sax da koo bañ ba bu yowmal qiyaamee kenn ku ci nekk li nga liggéey ci àdduna yaa koy lijjantil sa bopp yàlla dalay jox ab téere ne la iqra kitaabaka kafaa bi nafsika al yowma xasiba yàlla danaan la jàngal sa téere téere bi boo ko jàngee li nga doon jëf ci àdduna lépp a ngi ci fa nga doon dem mi ngi ci téere bi la nga doon dugg la nga doon wax lépp a ngi ci téere bi yaay jàngal sa bopp yaay atteel sa bopp yaay xool li nga doon def dara duñ la ko ci sosal man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa fa innama yadillu képp koo xam ne jub na na xam boppam la jubal waaye koo xam ne dëng na it dëng tege ca kawam rek lay wàcc kenn du tom tombal kenn fa man yaamal misqaala darratin xayran yarahu loolu rek nga fay fekk doo fekk leneen wa man yaamal misqaala darratin charran yarahu dégg nga kon alxaqatu mooy loolu ci alquran nag bari na fu yàlla di waxe wa ma adraka inna anzalnaahu fi laylati alqadri wa ma adraka am na ca waaye it bari na fa suñ borom di waxee ni wa maa yudrika wa maa yudrika laalla saata ah takunu qariba noonu la mu ngoog léegi fu yàlla suñ abdullah ibn mas'ud nee na fu yàlla borom bi waxe wa maa adraka ci alquran leeral na ko ba mu leer naññi détaillé ko ba mu détaillé ba mu wër waaye fu ne wa maa yudrika foofu moom leeralu ko da ko denc dégg ko léegi nag yàlla mu ni xam nga bu yàlla waxee yowmal xiyaam ak dëgg gi lii xew lépp day wax nag ña doon weddi yowmal xiyaam ak lañ lañ mujjee la leen dal ca weddi ga moo tax yàlla mu ni kazzabat weddi na kazzabat weddi na samuudu waa samuud waa aadun ak waa aad bil qaariati ca fëgg gis nga waa qaariat fii alaxira la ci jublu waaye ci fëgg ga alqaariatu mooy fëgg ga fëgg gi nga xam su amee rek ñëppay tiit muy lan yowmal qiyaam taxaw na ñëpp tiit waa aat ak waa samuud dañ ko weddi woon ba ñu ko weddee nag lu xew parce que yàllaa ñu bëgg wax waa Quraysh yéen ñi weddi yowmal qiyaam def ñu leen waa aat ak waa samuud bañ ko weddee du yéen rek ko ko weddi de waa aat ak waa samuud weddi woon nañ ko ak ñeneen ak yeneen ñoo xam ne danañ ko leeral ci saar wi waaye yàlla mu nag fa amma samuudu waaye nag waa samuud day ñoom ba ñu ko weddee fa uhliku dañ leen a alag bi taariyati ca yuuxu bu bu kawe ga lool maanaam waa samut dañ ko weddee yonente ba woo leen woo leen ñu lànk bañ a gëm yàlla dafa yebal jibril ca ñoom mu ñëw yuuxu fa yuuxu goo xam ne dafa dagg seen xol ya ñoom ñëpp ku ci nekk fam la fekk nga toog rek ba yuuxu nga jibee rek fa fa nga yem xam nga kon yuuxu googu am na doole de genn yuuxu goo xam ne day dagg xol yi ku ne fa nga toog rek fa ngay yem fa ngay dee ca yuuxu googa loolu mbokk jullit yi yàlla nañ ci yàlla musal ko dégg yàlla nag mu ne wa amma aadun waaye nag waa aad day ñoom day fa uhliku yàlla daf leen alage bi riixin ci ngelaw loo xam ne sor sorin ngelaw lu sedd la goo xam ne yuuxoom dafa kawe lool aatiyatin boo xam ne bu jéggi dayoo la bu jéggi dayoo maanaam ñoom ngelaw lañ leen yàlla alagee ngelaw nga dañoo toog rek ngelaw li commencé yuuxu wiiw xam nga léeg-léeg buy waaj a taw ngay dégg ngelaw li yow lu mel noonu la leen suñu borom bi alagee sarsar sarsaar mooy firi salaire salaire mooy yooyu di yuuxu par guddi gi xam ngeen salaire yuuxu gu mel noonu la ngelaw di yuuxoo waaye am doole lool ñëw jaxase leen ngelaw loolu leen suñu borom bi alagee alag leen ci ñoom ñëpp ca lañ faatoo ci sababu su weddi gi ñu weddi ne yowmal qiyaam am na te ak bari ci adduna ñu weddi ne yowmal qiyaam amul waaye nag ñoom ndax benn bis la am ñaari fan la waaye nag yàlla mu sax saxaraha tàggat na ko lan la yàlla tàggat ngelaw li maanaam ngelaw li la suñu borom tàggat alayhim ci seen kaw mu wàcc ci seen kaw sabaa layaalin juróom-ñaari guddi muy ngelaw rek wa thamaniyata ayaamin ak juróom-ñetti fan muy ngelaw rek waaw di jaxase xam nga dëkk yu baree baree baree bare yu yu yu yu tas tey ngelaw ko tas ah yu baree baree baree bare tsunami ci jamono yàgg 2007 wala côté yooyu amoon na ngelaw lu metti lu fa amoon jaxase géej gi daanaka dangay gis benn gaal goo xam ni suñ borom bi da koy génnee ci géej gi naawal ko ba mu génn bitti géej gi nga xam ne dana jóge ci géej gi naaw lu mat ñetti kilomètre gaal gu gu suñu borom naawal ci lu yàggul dara dara ci jamono ji rek ci àdduna bi nga xam ne kon suñu borom bu bëggee alak nit bu bëggee alak aw nit yomb na pour mu alak leen yàlla nañu yàlla musal ci alagu suñu borom dégg nga ko kon ngelaw li la ko taxoon a jóg mooy yàlla da ko tàggat uniquement pour mu ñëw alak ñooñu moo tax démb ma ne la mbindee fi suñu borom yi kenn ku ci nekk dafa am looy jaamoo yàlla nit ñi yàlla da leen digal ñu jaamu yàlla wéetal ko topp ko di ko wéetal topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngelaw li it lenn lu ci nekk suñ borom bi bu jógee rek dafa am lu ñu ko defalee ma ko ngelaw li saa bu jógee rek daa am lu muy defi moo rax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ni su ngelaw amatee ba bari na ngeen nangeen ngeen na ngeen na wax ni allahuma inni asaluka xayraha wa xayra ma ursilat ilayha nee na ko yàlla na nga wax yàlla maa ngi lay ñaan yiw wi ngelaw lii di ëndaale yàlla nag ma ko may waaye yiw bi tax nga yebal ngelaw li it yàlla na ma ko may kon ngelaw loola dafa jóg ngir dara mission lay doxi su jeexee mu delluwaat waaye it nga waxaat ni ko allahumma inni as'aluka min sharriha wa sharri ma ursilat ilayha maa ngi lay muslu ci ay wi ngelaw li tax wi wi jógee ak ay wi tax nga yebal ko yàlla na ma ci musal kon saa bu ngelaw jógee rek mission lay doxi mission suñu borom bu paree ñëwaat toogaat kon jaamu yàlla boobu loola yitteem weñ yii di naaw ak yooyu yeeg malantaan yi yëpp kenn ku ci nekk daa am mission yu muy dox ci àdduna dégg ko noonu la ko léegi nag yàlla mu ni <clears throat> juróom-ñetti fan xosoo man yu tegalantoo nag maanaam ñu ne ah tey de ngelaw ngir démb na ngelaw na waaye tey ngelawut waaye bis bu jot rek ngelaw li dafay jóg di topp maanaam xosoo man di topp toppaloo toppaloo muta tabiam yàlla nag nee na su ko defee fataral xawma nga gis nit ñi nee na nga gis nit ñi fiha ca ñooña maanaam ña yàlla alage ngelaw li saraa ñu daal xalangu maanaam daanu saraa mooy nga daanu ba xalangu nii loolu mooy saraa nee na boo leen gisee ñu daanu nag ka annahum day mel ne ñoom ajaazu naxlin dafa mel ne ëkku tàndarma xaawiyatin yu yu yu yu yu yu doyadi yu xeebu maanaam boo gisee ba ngelaw li alat na leen ba kenn ku ci nekk tëdd fa mu tëdd boo ñëwee da ngay defe ni ëkku tàndarma gu tëdd la gu doye di ndax lan seen ponkalaay ak seen nañ toll ay nit yu ngand lañ ponkali nit xam nga jamono jamono jii rek la doomu aadama yi toll nii waaye amoon na jamono joo xam ne nit ñi ngandi nit lañ doonoon xoolal ku ci mel ne ko yonente yàlla aadama alayhi salaatu salaam sunu maam boo jàngee xisaam dañ naan la soixante xasab la maanaam loxo bi boo ko compté ba muy soixante noonu noonu la toll sittuna ziraan ku tol noonu da nga ko gis fii ci àdduna ponkali nit la doon yàlla mu ñu boo leen gisee fan tëdd da ngay mel ne que ëkku tàndarma gu doye di moo tëdd fekk nit la kon li yàlla bëgg a wax mooy ñooñu nañu tolloon mu indi ngelaw alak leen te yéen xool leen ni ngeen toll matu leen sax ay deux mètres ak trois matu leen ko su ma bëggee mbugal leen dama koy def léegi ci lu gaaw a gaawa a yàlla nag mu ni fahal taraa nee na waaye ndax xoolal lahum ñeen leen min baaqiyatin am na lenn lu des ci ñoom nee na xool leen dara desul ci ñoom beneen nañ ba jeex tàkk dee nañu ba jeex tàkk tàkk tàkk tàkk dara des ko xam nga ngeen yonente yàlla noox alayhi salaatu wasalaam bi ñu jàng fan yi bi nga xam ne woote na junni at yu xam nga ca jamonoom ba yàlla ba leen alagee dana ñëw sax ci saar wi ñëpp a dee woon ñëpp a dee ba mu des njabootu yonente yàlla noox ak ak ak ña nekkoon ca gaal ga mooy ñooñu rek mooy njaboot gi ña nekkoon ca gaal ga rek a fi desoon bu dul woon ñoom konoon àdduna foofu la yem day tukki daanaka comme ñun fi ñu dekkee fi ñu fi ñu ñëwaatee mooy ña desoon ca gaal ga ñooy sunu maam yi waaye àdduna foofa tukki woon na fa daana moo tax yàlla wax na ko ci alquran nee na wa jaal naa wa jaal naa durriyatahu humul humul baaqiin njabootam rek ñoo fa desoon waaye ñëpp dañoo demoon ba jeex tàkk dégg nga ko léegi nag yàlla leeral na aat leeral na waa samuut ba ñu weddee léegi nag yàlla ñëw mu ni wajaa a dikk na firawnu firawnu wa man qablahu ak ña ko jiitu firawnu ci waa yàlla kan la yebaloon ci firawna muusa waaw góore waaw góor yàlla muusa mi ko mi ngi ko yebaloon ci firawna lan moo tax fii yàlla wax niti aat ak waa samuuda te waxul waa muusa lu tax waxul waa muusa xam ne lu taxa parce que yàlla dafa tudd firawna parce que moo nekkoon seen kilifa ndëm ga tega waa dëkk ba nekkoon yëpp firawna taxoon lépp moo ko sabab mooma mooy ndeyu mbili gi moo sooke lépp moo doon taxaw naan ana rabbukumul aala man maay seen borom bu kawe bi man maay def nangam maay raye maay dundale maay def lii ak lii moo tax yàlla seppi ko ci moom ni ko fàttalikul firawna wa jaa mu di ko firawnu firawnu wa man qablahu ak yeneen ñi leen na ngeen bàyyi xel ñoom dañoo weddi woon de yàlla mu ni wal ak ña nga xam ne dañ leen a dëpp wal mutafikaatu ak ña nga xam ne dañ leen a dëpp bil xaati ati ci njuumte gu rëy ga defoon al mutafikaat ña ñu dëpp mooy ñan wan xeet la yàlla alagoon alagu këpp mu juutal leen waaye loot waa góore waa loot yonente yàlla loot aw xeetam yàlla da leen a alagee dafa ñëw wëlbati suuf su ñoom ñëpp ñu juutu noonu la leen alagee la la la lañ nekkoon di def ak ngóor jigéen lañ doon def ñoom ñoo ko fi indi waaye nag njuumte gi gën a yàlla mu ni bil xaatiati ci njuumte gi a rëy kon mi nga wax waa Quraysh ni leen na nam tolloon ba tax mu naan ana rabbukumul a'la dama koo mbugal ak ña ko jiitoon ñëpp ak waa Luut ñoom ñëpp dama leen a alak bàyyi leen ko xel waaw lu tax ma alak leen fa asaw nee na dañoo moy rasula rabbihim ndawal seen borom nee na yonentab yàlla ba rekk la ñu weddi yàlla dafa yebal ab yonent ci ñoom ñu weddi ko ba ñu ko weddee nag fa axad fa axad fa axadahum yàlla jàpp leen axdatan ak jàpp goo xam ne raabiyatan gu tar la gu metti lool mooy lan mbugal yi nga dégg mu di leen ko def ñii mu juutal leen ñii mu ñëw daa di yuuxu malaaka ma yuuxu seen kaw ñii mu andi ngelaw mooy axdatan raabiyatan boo demee ci yaa ayyuhal muzammilu inna arsalna ila ila firawna rasula fa asa fa asa firawna rasula fa fa axadnaahu axdan wabilan gis nga ko fii tamit mu ne ko fa axadahum axdatan raabiyatan yàlla jàpp leen jàpp gu tar gu metti mooy wabilan fële rek benn firi bi la ñoo bokk ba yàlla yobalee yonent bi yonent bi ca firawna firawna mooy yonent ba fa axadnaahu axdan wa bila aleykum salaam wa rahmatullah dégg ko léegi nag yàlla mi ngi toxoo mi ngi jógee ci firawna ak waa luuti ma ngay dem ca keneen de nee na ko innaa niki ñun yàlla innaa niki ñun yàlla lamma taxal maa u ba nga xamee ni dolli nañ ndox ma wala ba nga xamee ni ndox ma ndox ma ndox ma jalgatiwu na maanaam dolli nañu ndox ma fil jaariyati déedéet inna la taxal baaw waaw kay xamal naakum xamal naakum nee na ñu ñu ñu ñu fob ñu gàddu leen fil jaariyati ca ndox ma lan la ci yàlla jublu nee na innaa niki ñun la ma taxal maa xam nga waa nuux kon pare na ci waa Muusa ya ak Aad ak Samud ñëw ci waa nuux waa nuux ba leen yonent yàlla nuux woowee lu mat junni at yu manqué juróom fukk ñu lànk bañ ko topp lan la leen yàlla suñ borom bi alagee ah lan la leen yàlla alagee ku ko xam ci yéen am ndox mu baree bare la leen alagee moo tax mu ne innaa nekk ñun lamma baxal maa u ba nga xamee ni dolli nañu ndox ma maanaam yokk nañ ko ba mu bari kon yeneen waa yonent yàlla nuux ya ba bañ bañee yàlla dafa ënd ndox mu baree baree baree baree bare baree bare baree muy wal rek di dem ñépp lab maanaam ñu gëmul ña nga xam ne nag dañoo jot a gëm yonente yàlla noox alayhi salaatu wassalaam yàlla dafa digaloon noox avant muy andi ndox mi da ko ne ko defaral gaal parce que li may préparé gaal moo la ciy dimbale ci sama ndigal mu defar gaal ba mu defar gaal gi sax ñu ngi ko romb di ko reetaan naan waajilee ga ab daf la ba mu di leen tontu naan fa in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxaruun bu ngeen ma reetaane it ëllëg danaa leen ree léegi yonent yàlla mu defar gaal mu ni ko dugal ci ñi la gëm ñëpp ba mu leen ca dugalee nag yàlla daal di wax asamaan ak ndox ak suuf ni ubbiku leen ndox mi génn wa qiila yaa ardu bulai maaki wa yaa samaau aqlii wa xiida almaau wa qudiya al amru wastawat ala aljuudiyi wa qiila bu'dan lil qawmi zalimin yàlla mu ni ma wax suuf ni ko xaral suuf si bal la suuf si ubbiku suuf sa suuf sa ndox ma bal la yàlla mu ne ma wax asamaan ni ko ubbikul asamaan ubbi ko ndox ma wàcc léegi suuf a ngi génne ndox te asamaan bi daan wàcc suuf a koy naan léegi suuf a ngi ball asamaan a ngi wàcc fu ñu jëm ñun alako léegi nag waa Nuux nekk ca gaal ga moom mucc nañ léegi nag doomu yonent yàlla Nuux ba nga xam ne gëmul nag ah yaa bàyyi ñu ko waaye tegaa ñëw gëm yàlla gëm yàlla nga dugg ci gaal gi ah ni ko déedéet sa aawi ilal jabali yaasimuni minal maa maa ngi daw ca doj wu mu wéle moo may muccal ci ndox mi nu wax ni ko laa aasimal yowma min amrillah illa man rahima wa xaala baynahum baynahum al mawju fa kaana min al mugraqin nu wax ni ko déedéet tey moom yàlla rek mën a muccal te mu leen mucc la mooy ngeen gëm ko topp ko de kaay leen fii ci gaal gi moo tax yàlla yonent yàlla noo yàlla mu ni ba ndox mu ñëwee nag dafa wannaale doj waa ñëpp la wannaale ñu yaa di alku ñoom foofu la ñëpp deewee ña des mooy waa kër noox rek rek rek rek a desoon bu fekkoon ñoom ñëpp dee nañ tukki woon na waaye nag ñun ci njaboot googu lañ bokk nag waaye àdduna bi jeexoon na ko dégg ko léegi nag lan moo tax yàlla def lii lépp mu indi samut waa aat waa nuux waa luut waa Moussa lu tax lii lépp nag yàlla mu ne li najalaha ngir ma def ko lakum ñeel leen yéen ñii di ma dégg lakum ñeel leen tazkiratan ak waare su ngeen di dégg lii yéen da ngeen di xam ne kon yàlla ku ko gëmul rek da lay alak li tazkir li najalaha lakum tazkiratan ma def ko muy ak waare ci ñeel ndax bu ngeen jàngal da ngeen waaru kon da ngeen daw gëm yàlla da ngeen di xool bëggalum suñu borom ni mu mel ni yàlla amee kàttan ci ku ko gëmul kon da ko def waare waaye nag wataayaha mu wattu ko maanaam mu enregistré ko udunun ay nopp yoo xam ne waayatun yuy dégg la tey denc su ko defee bu ngeen ko déggee da ngeen ko enregistré bu baax dégg ko denc ko bu baax boobu ëllëgee da nga mën a xam fi ngay teg sa tànk bu baax sa diggante ak sa ak sa borom léegi nag suñu borom bi pare na foofu kon nee na lii ma def lépp nag ak waare moo taxoon léegi kon beneen mission la yàlla di leeralay yàllaa ngi dem mu ngi fu mu toll mi ngi dugg mi ngi dugg mi ngi dugg yomal xiyaam mi ngi jëm côté boobu premier pas mi ngi wax nag bu xam nga oto bi buy départ euh, aca Dakar Dakar Dakar dakaar Dakar dañ dugg ba pare ba ñëpp dugg ñu tëj porte yi ñu ne encaissé indi paas yi paas yi takk bagage yi léegi nag suñ borom wax ni ñu war a départ nag jëm yomal xiyaam nee na fa iza nufixa nee na bu ñu walee ëf fa idaa nufixa bu ñu walee maanaam ñu ëf fi sóori ca béjjén ba nafxatun ak wal waaxidatun bari benn fa idaa nufixa suñ waree walee wal ëf fi sóori ca béjjén ba nafxatun ak wal waaxidatun bari benn xam ngeen am na benn malaaka boo xam ne israfil la yàlla da ko jox benn béjjén bu mag béjjén boo xam ni bu demee ba àdduna war a tukki da koy ëf ku ne ko tukki àdduna war ñu war a dekkiwaat mu ni ko ëfaatal mu ëfaat beneen ëf gaa ñi ci suratu yaasin wa nufixa fi suuri fa idaa hum min al ajdaafi ila rabbihim yansiloon dégg nga ko dégg nga ko wa nufixa yi bari nañ léegi nag bu fekkee malaaka wal na benn wal su boobaa luy xew wa xumilatil ardu yàlla mu ni ñu daal di gàddu suuf maanaam ñu gàddu ko suuf si nga gis nii suñ borom da koy lem taxañ teg wa xumilatil ardu wal jibaalu ak montagne yi montagne yi nga gis ci kaw suuf nii fa dukkataa nee na dañu koy mokkal dukkatan ak mokkal waaxidatan bari benn dañu koy lem mokkal ko ba mokk rumbax mooy la ngeen doon jàng ca alqaariatu ku ma koy fàttali ah ci jibaal gi wa takunul jibaaloo dégg nga ko xam nga suuf si xool ni mu toll suñu borom tabaaraka wa taala nar koo lem gàdd koog benn loxoom wax na ko ca alquraan nee na wa maa qadarullaha xaqa qadrihi wal ardu jamian qabdatuhu yowma alqiyamati nee na wal ardu suuf si jamian mboole seen suuf si lépp qabdatuhu yowma alqiyama borom bi da koy ngëb ah yàlla bari na doole di suuf si mu ngëb ko lépp jeexul di waaye mu ne ko wasamaawaatu matwiyaatun bi yaminihi asamaan si mu lem teg borom kattan la xam nga loolu bu xewee rek àddunaa ngi tukki maanaam suuf si lem nañ ko asamaan si lem nañ ko léegi bu fekkoon baay dafa war a tukki xëy suba lem basang lem sajaada yi gàddu saag bi lu des dem yàlla nag bu lemee suuf si lem asamaan lu des kaay leen ma àtte leen ah léegi de su loolu xewee su ko defee nag nee bu amee day nee na fa yawma idin nee na booba bés nag booba jamono bu loolu amee waqaati nee na xew na alwaaqiatu xew-xew ba nee na su loolu amee rek xew-xew ba am na nag mbir ma xew na yowmal qiyaam taxaw na nag la ngeen di wax ñëw na moo tax yàlla wax na ko ci alquran feneen nee na ida waqaatil waaqiatu nee na xew-xew ba su wàccee ida waqaatil waaqiatu nee na laysa li waqaatiha kaadibatun nee na amam du ay nar de day am de xaafidatun raafiatun nee na day toroxal képp ku weddi yàlla yëkkati képp ku gëm yàlla taragal yàlla xaafidatun raafiatun su ko defee luy des lu ci topp ida rujjatil ardu rajjan nee na nag mu rijji suuf si rajjan yëngal ko wa bussatil jibaalu bassan wa bussatil jibaalu bassan su ko defee nag fa kaanat habaa am mumbatha nee na montagne yi nekk ab poussière su ko defee nag yàlla tas doomu aadama yi wa kuntum azwaajan salaasatan ngeen nekk ñetti parti ñetti parti fa asxaabul maymanati ñi nga ne wa asxaabul mashamati ña ne wa saabiquuna saabiquuna ulaayka almuqarrabuuna ña nga ne bu xew-xew bi xewee rek suuf si yëngu yàlla lem tas montagne yi ñu ñëw nag war a àtte ñi rek yàlla waxaa na ko ci alquran nee na ida zulzilatil ardu zilzalaha yàlla yëngal suuf si zilzalaha wa axrajatil ardu athqalaha nee na li deesaloon suuf si yàlla génne ko mooy lan gaañe nit ñi wa axrajat asqaha wa qaala al insaanu maa laha mi ngi nii di ñëw fii dana fi dikk léegi nag su loolu amee nag nee na yàlla mu ngi xew-xew ba xew na wan shaqati samaau nee na wan shaqati mu xar ida samaun shaqat nee na wan shaqati mu xar asamaau asamaan si fu ko defee nag fa hiya moom day yowma idin bés boobee waahiyatun day nekk lu woyof lool lu woyof lu yomba yomba yomb yomb waahiyatun su loolu amee nag si lam asamaan si xar lan ci des nee na wal malaku nee na wal malaku malaaka yi ñu taxaw wër ko nag ñu taxaw wër ko ñoom ñëpp ñu taxaw wër wër ko yàlla wax na ko ci wal fajri nee na wa jaa rabbuka yàlla sa borom ñëw wal malaku ak malaaka yi safan safan ñu def ay sàppe sàppe sàppe sàppe eh garaaw su ko defee nag wa ji a yawma idin bi jahannama nee na nag ma indi nag booba bés ma indi jahannama nee na idin yatadakkaru insaanu ma saa wala de yatadakkaru insaanu ma ah wa anna na bu ko defee rek yow jamono doomu aadama nag fàttaliku nag li doon def lépp ndeysaan la ilaha illa allah doy na waar nee yàlla daal di wa jaa malaku waaye fii nag yàlla mu ne wa yaxmilu dana dana gàddu dana gàddu arsha rabbika arasu sa borom arasu sa borom fawqahum ci seen kaw yowma idin booba bés samaaniyatun juróom-ñetti malaaka xam ngeen arash foofa la yàlla suñu borom bi nekk wax na ko ci suratu Taha nee na arrahmanu ala al arsh istawa ala al arsh istawa lahu ma fi samawati wa ma fi l ardi wa ma baynahuma wa ma taxta thara léegi nag aras fara yàlla nekk aras dafa am ay malaaka yu ko téye keroog juróom-ñetti malaakaa koy téye aras mooy mbindeef bi nga xam ne moo gën a màgg moo gën a ngand ci mbindeefi yàlla yi am na benn xadis boo xam ne mawquuf ñu ngi ko jële ci abdullah ibn mas'ud nee na diggante asamaan bi ñu doon di gis ak asamaan ba ca nee na asamaanu benneel ak bu ñaareel diggante bi am na espace ñu war ko mën a daw juróomi téeméeri at doog a àgg ca beneen ba xam nga soree na nee diggante ñaareel ba ak ñetteel ba moom it juróomi téeméeri at ak juróomeel ba ba ba juróom-ñaareel ba nee na diggante juróom-ñaareel ba nag ak kursi yu mooy fa fa fa kursi yu suñ borom bi nee na moom it diggante ba juróomi téeméeri at la ay ab espace bu sori la nee na diggante kursi yu nag am na fu ñuy wax maa am na fo diggante kursi ak arash am na ndox mu fa yàlla def foofu juróomi téeméeri at la moom it diggante ndox mooma ak kaw arash moom it juróomi téeméeri at la waaye nag suñu borom nekk ca kaw tiim adduna nag eh, borom bi kawe na borom bi kawe na da xool espace yi rek nañu toll xam nga aras ci kaw am ndox la nekk ah dégg nga ko arash lu yaatu la kenn mënta xam ni mu toll kenn mënta xam ni mu toll moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam xoolal arash masalan tey da ngay xool xam nga yàlla nee na wasia kursiyuhus samawaati wal wal arba wala wal arbi wal arba nee na yàlla mu ni séysam ba kursiyam ba ëpp na ëpp na asamaan yi ak suuf boo boole woon juróom-ñaari asamaan yi yëpp kursi boobu moo ko ëpp te kursi yi booba aras fa yàlla nekk moo ko ëpp juróom-ñetti malaaka ñoo ko war a gàddu ñooñu nuñ toll ñooñu nan lañ toll moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni yàlla may na ko ndigal mu wax ci ñoom nee na ñiy gàddu aras ñiy gàddu aras kenn rek kenn diggante nopp beeg mbagg mi nee na boo ko doon espace di nga dox juróomi téeméeri at jóge ci nopp bi jëm mbagg ma da dox juróomi téeméeri at dooga àgg ca mbagg ma kenn ki te juróom-ñett ko war a téye aras ni mu toll kon bàgg na subhanallah na su ko defee nag yow ma usine nee na bis dañuy daal di gaar ñu gaar seen jëf yi ñu gaar seen jëf yi mooy waqaala al insaanu maa lahaa yowma idin tuxaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awxaa laha yowma idin yasduru nnaasu ashtaatan li li yuraw acmaalahum nee na nag yowma idin bis boobee tucraduuna ci la ñuy gaar seeni jëf la ñuy gaar waaye nag laa taxfaa déeful nëbbu minkum ci yéen xaafiyatun ak nëbbu nee na su boobaa yàlla gaar mboolem li ngeen doon jëf ci àdduna su boobaa nag dara du nëbb yàlla lépp ay génn lépp ay feeñ lépp ay ñëw dara du nëbbu yàlla ku màgg la kon foofu la ñu yem léegi nag buñ paree fii nag ci la ñu ñëw ci waa ñi nga xam ne ñu gëm yàlla lañ loolu lañ war a amee yowmal qiyaam su ko defee suñ paree ci loolu dem ci ñi gëmut yàlla lañu war a am ak yu mel noonu kon dañu yem foofu incha allah ci laaya fukk ak juróom-ñett ba suba ak jàmm incha allah kon dégg ngeen ko yàlla nañu yàlla dimbale boole ñu ca jaamam yekk a gën a yàlla nañu yàlla dimbaleel boppam defal ñu tawfiq defal ñu jàmm fi dunya wa fil axira may ñu ak ragal yàlla bu dëgg bu sax yàlla ñu yàlla dundal ci topp yàlla ci ragal yàlla bu ñuy faatu it yàlla na ñu fekk ci topp yàlla ci ragal yàlla yàlla boole ñu aljanna ca ña gën a baax ca ña ngi dugal aljanna yi gën a kawe ah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu